Koti ñu ngeen leen naan nuyu ku nekk sa tur ak sa sant ah, di leen dalalaat fii si Gambian Talents TV si xibaar yu rëmbe réew mi ma di leen ko jottali Aida Kébé si boppi xibaar yi nag ah, bu si jiitu mooy ah, ñu gën a xamee si pensionnaires yi ñi nga xamante dañ liggéey ba pension ñoom nag ñoom ñooy jooy di wax ne seen waruwaay jotuñu joxuñ leen ko comme nuñ comme nuñ ko war a jotee ki gën a xamee nag ah, si si la moom mi nga xamante ne nii moom moo taxawal Banjul Nord fi sa néegi député yi moom nag moo gaaral kàddoom si jafe-jafe yi nga xamante ne nii ah, ndawi Gambia yi ñu ngi ko ndawi Gambian si ñu ngi ko jànkuwanteel fi sa réew jaamane ki ngeen a xamee si Youssoufa Dabo mi nga xamante ne nii taskati xibaar la fële sa Star FM moom nag moo gaaral ay kàddoom ne dafa am ku ko tëkku gannaaw bu mu tasee yenn xibaar fii si biir réew mi dalalaat fii si Gambian Talents TV si xibaar yu rëmbe réew mi ma di leen ko jottali Aida Kebe si boppi xibaar yi nag euh, bu si jiitu mooy euh, ñi gën a xamee si pensionnaires yi ñi nga xamante ne liggéey ba pension ñoom nag ñoom ñooy jooy di wax ne seen waruwaay jotuñu euh, joxuñ leen ko comme nuñ comme nuñ ko war a jotee kiñ gën a xamee nag ah, si si la moom bi nga xamante ne nii moom moo taxawal Banjul Nord fële sa néegi député yi moom nag moo gaaral kàddoom si jafe-jafe yi nga xamante ne nii ah, ndawi Gambia yi ñu ngi ko ndawi Gambien si ñu ngi ko jànkuwanteel fële sa réew réewum jaamane ki ngeen a xamee si Youssoufa Dabo moom mi nga xamante ne nii taskati xibaar la fële sa Star moom nag moo gaar ay kàddoom ne dafa am ku ko tëkku gannaaw bu mu tasee yenn xibaar fii si biir réew mi. spokesperson bi nag biñ gën a xamee si ah, Ibrahima ji Sankare moom nag ah, gaaral na kàddoom ak naqaram si ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy tas xibaar yoo xamante ne nii teguñ ko fenn. li leen leen amaloon nag si xibaar yi ah, ba tey dañoo jàll ak yéen si yarami xibaar yi. Hello. pension ñoom ñi nga xamante ne dañu liggéey ba pension ñoom nag ñooy jooy di yuuxu di wax seen naqaraay si ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy social security and housing finance corporation ah, ñoom nag danaa buñ ootee ndaje ah, wax neen leen ne ah, social security nekkuñ di leen jox seen waruwaay comme ni ñu ko waree jotee ki ñu gën a xamee si Assane Seye Assane Sène Kane moom nag nga xamante ne nii bokk na si kuréel gi nga xamante ne nii ñoom ñoo Euh, boot euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo personne moom nag gaaral na ay kàddoom wax na ne ni euh, ñu ngi gën a xamee si social security den war a wax gars yi seen xaalis bi fan la ko gaa yi nekk di dugal. buñ ah, sukkandikoo si ay kàddoom ba tey moom wax na ne fu mu toll nii gars yi ñu ngi torox ah, parce que gars yi depuis ba ñu ritaayee gars yi nekkuñ di leen jox enof xaalis joxuñ leen xaalis bu mut xaalis bi nga xamante ne nii faju gàccee ba tax it mun leen a jëndal ay kër mun ta toppatoo seen famille bi buñ sukkandikoo si ay kàddoom moom nag ba tey garal na ay kàddoom wax ne lii métti na torop ah, ba pare depuis bañ pension na si ñoom ñi nga xamante ne leen pension joxuñ leen lu dul ñeenti té juróom juróom-ñeenti téeméer ak juróomi dërëm la leen gars yi nekka di jox euh, gars gannaaw gars yi bañ personnel te duñ leen ko dee jox euh, ba ñetti euh, weer yi daal di tegale si leen leen ko dee jox Ah, ba tey it ah, buñ si kàddoom si kooku nga xamante ne moom moo gaaral kàddu yooyu ah, si ndaje bi nii nag kiñ gën a xamee si Saalifu Jawara moom nag mi nga xamante ne ni bokk na si ñi nga xamante ne dem pension moom tamit gaaral na ay kàddoom di wane métit ak naxariwaayam naxaraayam bi nga xamante ne nii gars yi ñu ko jànkuwanteel fi moom nag wax na ne xaalis bi leen gars yi di jox nii fajut gàcce ba tax it mënul leen a jëndal sax saaku bi nga xamante ne ni mën nañ ko toppatooree seen famille bi buñ sukkandekoo si ay kàddoom kuñ gën a xamee si Souleymane Ndiaye moom nag ah, wax na ne ni 300 ah, dara yi mu ñetti téeméer leen ngay daan fay ah, buñ dooree pension aise waaye buñ demee ba diiri ñetti at. gars dal gaay gars daal di ni ko yokka euh, yokka fa li nga xamante ne nii mooy 400 gars gaay daal di leen fay 700 dalasi waaye moom nag euh, ba tey si gëm-gëmam euh, mu ngi wax ne ne ba tey gars war na leen naa yokkal parce que 700 dalasi boobu moom faju gàcce buñ sukkandekoo si kàddoom suñu naataangoo nag di point newspaper ñoom ñoo fisal bi le xibaar première xibaar yi ah, ki ñu gën a xamee si Ousmane Sylla moom mi nga xamante ne nii moom moo taxawal Banjul North fële sa néegi député yi moom nag mu ngi wane na xaraayam ah, si ah, ndaw yi nga xamante ne nii jafe-jafe yi yooyu leen nekkal jànkuwante fële sa réewu Germany buñ sukkandekoo si ay kàddoom moom Ousmane Sylla wax na ne nii ne lëkkaloog naag ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy European government bi nguuru European lëkkaloog naa ñoom pour xamal leen ne Gambian si ndawi Gambia yi lu gaay nekk di jànk kuwante foofu noonu sa duwaanu jaamani euh, du yoon te teguñ ko fenn euh, buñ sukkandikoo si ay kàddoom ba tey euh, moom Ousmane Sylla moom nag wax na ne ne gannaaw bu mu gisee vidéo nga xamante ne ni tasaare nañ ko foofu sa internet bi daal di gis ndawi Gambia bi naka la gaay takkee tànkay takkal loxo yi police yi gaay di ko def li nga xamante ni jaar yoon moom nag ñaawlu na ay ñaawlu na loolu bu baax taw xam ne ne loolu inhuman la nekkul loo xamante ne ni du right la ne Ah, amoon na ndaje bi nga xamante ne nii defoon na ko gannaaw bu mu demee tukki fële sa réewu Australia ak sa réewu Italie ba dajale ndawi Gambia yi dajalee ñi mbootaay yi nga xamante ne nii ah, ñu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon foofu noonu ah, pour wane na xaram ak tiisam si li nga xamante ne nii ndaw Gambia yaa ngi ko jànkuwanteel fële sa bitim réew moom Ibrahima Silla nag moom mu ngi wax ne ne nii dina jokkoog nguuri Gambia bi ba nga xamante ne nii ndawi Gambia yi buñ génnee si réew mi dem bitim réew dinañ leen tërit dinañ leen toppatoo comme ni ñu ko war a comme ni ñu leen war a toppatooyee suñu naataango di point newspaper ñoom ñoo fesal di rek xibaar. tey génn si biir xibaar yi ba tey euh, taskati xibaar bi ñu gën a xamee si Youssoufa Dabo moom nag di liggéey fële sa Star FM euh, moom nag wax na ne ni am na benn waaji ko tëkku euh, ne dina ko rey gannaaw bu mu tasee xibaar boobu noonu nga xamante ne ni standard newspaper la jëlee boobu xibaar xibaar bi wax na ne nag African lawyers vow to bring Jammeh to justice in Ghana gannaaw bu ñooñu waxee loolu ba moom tas xibaar boobu noonu fii si réew Gambia am na wax na ne ne ko kool fàtte na turam waaye kooku gaaral na ne kootukuwaar la dëkka ah, wax na ne ne tëkku na ko ne dina ko rey ah, su bàyyit ah, lu mu nekk di def buñ buñ si ay kàddoom moom nag di Yusufa Dabo wax na ne jot naa waxtaan ak kooku noonu nga xamante ne noonu moom moo ko kool ba pare wax na ko ne xamal ne ko ne yi ma joxe noonu ko jëlee nekkul lu ma bind nekkul li ma defaral suma waaye kooku nga xamante nii moom moo ko kool xool euh, waxoon na ko nee ne loolu su ma yoon nekkut si euh, muy ay doon care loolu la ko daal di wax buñ sukkandikoo si ay kàddoom euh, moom nag kii nga xamante ne mooy Youssoufa dooleel ko di seen si e bi di Alpha Karanga moom mi nga xamante ne ni moom mooy CEO Star FM euh, CEO bi nag gaaral na ay kàddoom wax na ne ne euh, bii nag nekkul benn yoon euh, lii di dal staffam yi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey foofu Star FM waaye bii mooy ñaari yoon bi parce que at bële passé defoon leen ko ki nga xamante ne nii mooy Sadio mooy Sadio Baro saajo Baro moom tamit nga xamante ne dafay tas xibaar foofu sa Star FM euh, si kàllaama Manding si kàllaama soose euh, moom itamit tëkku woon neen ko te ki nga xamante ne moom mooy si e bi euh, gaaral na kàddoom bi de di ñaax government bi pour ñu jàppale leen ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy taskati xibaar yi ak taskati xibaar yu nekk fii si biir réew mi si sukkandekoo si suñu si suñuy naataango di standard newspaper wéy ak ba tey ah, si biir xibaar yi nga xamante ni ñoom ñoo lëmba réew mi fii si Gambian Talents TV ah, ki ñu gën a xamee si government spokesperson bi ah, muy Ibrahima Ji Sankare moom nag mu ngi wane naqaraayam si ñi nga xamante ne ni taskati xibaar yi nga xamante ne ni ñoom ñooy tas xibaar yi nga xamante ne ni jaarul yoon te du dëgga moom nag wax na na ni ne gannaaw bu mu organisé nga xamante ne ni mooy press briefing si àjjuma ba de passé na ay dom wax na ne ne ah, kat xibaar yi di tas xibaar yi féeg yi nii ah, yi nga xamantene ni jaarul yoon ta du dëgga si gouvernement bi ak cabinet am bi gay war nañ ci bay sen xel bu baax ah, mom nak buñ ko si ay kàddoom wax na ne ne jamono da passé won di nguur yaay jambe mom musta d'accord ak yaay jambe lu nane def ba nga xamantene ni bokkon na ci ñi nga xamantene ni yaay jambe daral na len di arrest arrestone na arrestoon leen ko mom si bopam waye gay dañ mëna bokkal bokk defaraat mi bam baax tabaxaat ko ba si tabaxaat ko ba mu baax am ñeneen ñi nga xamante ne dañoo ñëw di yàqal ñoom loolu liñ ko nangu ah suñu naataango di point newspaper ñoom ñoo fisal boole xibaar. wéeg yéen si biir xibaar yi ba tey fii si Gambian Talents TV. press release nag tey jotoon leen koo am ah, bi nga xamante ne mu ngi jóge woon fële sa State House sa Banjul ah, ñu gën a xamee si ah, Petronas ak fa moom ñi nga xamante ne ni nekkoon na ay mbootaay yi nga xamante ne ñoom ñëwoon ci Gambia bi pour gëstu ndax Gambia bi am nañ diw ak gaz wala amuñ ko ñoom nag ñoo update président bi di Adama Barrow ne ñoom daaluñ daal di gis benn. diw ak benn gaz fii si réew Gambia gannaaw bu ñu defee seen gestuwaay euh, yu gars yi doon def si ñetti si ñetti weeks yu ko gaa yi defoon fi euh, si li ak weer bi ñu passé ne la ñoom na gaaral leen seen kàddu ne ñoom euh, gisuñ dara gannaaw bu defee seen gestuwaay fan at yiñ passé ne le ah, ah, gisoon nañ ne ah, waxoon nañ ne Gambia bi am neen ay mandarga yi nga xamante ne nii war na ñëw mun a am li nga xamante ne nii mooy diw ak gaz waaye ñoo nag ba tey wax ne ne si gëstu buñ def nii ñoom daal gisuñ benn diw gisuñ benn gaz fii si réew Gambia bi mbokk yi lii leen leen indiloon si xibaar yi rëmbe réew mi fii si Gambian Talents TV di jaajëfal suñ caméraman bi leen jaajëfal yi toog leen seetaan di leen dig dox daje beneen yoon jërë ngeen